mooy ki nga xam ne day dund di gént di sangu waylaa ki nga xam ne daa yëg ne ci gént gi daa faatu ñu koy sang waylaa ki nga xam ne daa génte di sangu mbokkam moo xam ne daa faatu yëpp yoo am ci bana ci gént la kon loolu lañ fa yéenee leeral ala kulli xaal li mën ngeen a jël numéro yi ñi nga xam ne ñu bëgg ku leen firil gént wala ku leen seetal firi gént nag képp koo xam ne woote nga wala nga envoyé vocal na nga bàyyi xel daam luñ kiy fay ñu ciy joxe addiya juñ ciy joxe nekkul gratuite pour ñuy woote wala ñu envoyé vocal pour ñu bàyyi ci xel baax bu dee ñi nga xam dañoo bëgg ku leen seeta wala li si xaar incha allah mën nañoo jël numéro 78 443 75 27. ala kulli xaalin loolu tamit lu ci mat a bàyyi xel baax euh, bu mbokk mi nga xam ne dangaa gént di sangu sangal janaa ba ci bisub aljuma loolu day tegtale ak njégal bu doon koo xam ne dangay sàkku yàlla pour mu jéggal la nga gént di sangu mel ni kuy dem jumaa loolu dañ koy xamal ni bu doon jéggal lay sàkku yàlla jéggal la ko ba tey danay nekk fajug aajo bu doon koo xam ne daa bëgg yàlla faj aajoom ci digganteem ak ay waajuram mu gént di sangu nay tegtale ne yàlla faj na aajoom bi diggante doxan ci digganteem ak waajuram waaye ba tey yàlla faj na aajoom lu demoon ci diggante ak ay waa njabootam bu dee koo xam ne nag dangaa gént gis ku faatu muy sàkku ci yow pour nga futal ko ay yéreem loolu lu muy tegtale ci kooku faatu mu ngi sàkku ci yow nga ñaanal ko mu ngi sàkku ci yow nga jéggalul ko sun borom subhanahu wa taala ba tey it koo xam ne dangaa gént di fóot sa yére ci ndox mu sedd lool ba jéggi dayu loolu dina tegtale bu doon xat-xat yoo nekk xat-xat yi dañ ci gént bu yàgg waaye jafe-jafe yi diñ ci génn bu dee koo xam ne nag dangaa gént faatu yëg na ñu ngi lay sang ci gént gi loolu it day tegtale fajuk aajo bu doon ko am soxla soo bëgg mu faju wala looy lijjanti bëgg mu sotti nga gént faatu ñu lay sang hmm, ala kulli xaalin day tegtale loolu fajuk aajo lay doon ba tey day doon yokkute ci ay mbir bu dee koo xam nag dangay ñaanal ku feebar nga gént gis ñu koy sang ci gént gi alaakulli xaal dañ koy xamal ni kooku dana wér ci kàttanu sunu borom ba tey it bu doon koo xam ne dangaa nekk ci ay jafe-jafe gént faatu ñu lay sang dañ lay xamal ne yaa ngi génn ci xat-xat yu metti di dugg ci lu neex di dugg ci ak njàppandal goo xam ne luy am la bu dee ab yéefar la nga gént gis ko muy sangu janaaba dañ koy xamal loolu ak tuub la dugg ci lislaam koo xam ne gëmut yàlla nga gént gis ko muy sangu ba dañ koy xamal ni loolu ak tuub la ci moom ak tuub la dugg ci diine lislaam bu dee koo xam nag danga gént di aj màkka ba noppi nga gént di sangu ba alaa kulli xaal dañ koy topp dañ koy xamal ni loolu yokkute la ci moom rawatina lu aju ci wàllu wërsëg bu doon koo xam ne nag dangay sàkku ci mbir mu jëm ci wàllu place booy liggéeyee ngay ñaan yàlla ndax gën na wala gënut ci yow alaakulli xaalin dañ lay xamal ne nga gént di sangu ci biir place boobu alaakulli xaal dañ lay xamal ne place bu baax na place la boo xam ne soo ci duggee diñ ci am yokkute place la boo xam dana dindi ay jafe-jafe bu doon koo xam ne dafa tawat ba noppi mu gént di sangoo ndox mu sedd loolu day tegtale xëmmun mooy njàqare gu metti wa nakadin ak ay tiis yoo xam ne mu ngi nekk di jànkonte ak moom waaye feebar boobu pour mu wér ci du yomb ala kulli xaalin ba tey it koo xam dangaa gént di sangoo ndox mu tàng gént di sangoo ndox mu tàng baaxut loolu it jafe-jafe dana koy waral wala jotug xat-xat yu metti yoo xam ne dana ko dikkal wala jotug ay jafe-jafe ba tey mbokk mi nga xam ne danga gént di aj maka dem ba duggul màkka nga waroon sangu janaba pour pur a euh, tàmbali mihrab pour fas yéene aj nga yek ne ci genti gi kat dem nga ba ag waye sangu jana pour mihrab pour wajal. la kulli hal lolit dañuy xamal ne farjun la moy jafe-jafe wala ay khat khat yo xam nit ki genn gu ci ba mbokk moo ne ay bor di ñaan yalla pour mu fajal lako nga gént di sangu jana ba kulli xaal dañ lay xamal ne li nga doon ñaan yàlla yàlla defal na la ko bu doon koo xam nag da ngay tasxiir nit euh, di ñaan yàlla pour nootal la ko ba nga xam ne li nga bëgg dana ko def nga gént gis nit koo xam ne day bëgg a sangu di wut ndox mënu fexe ba am ndox moom ala kulli dañ koy xamal ne bu doon tasxiir tasxiir gi jàpp na bu koo xam ne tamit da ngay tasxiir nit gént gis ko muy sangoo ndox mu tàng. dañ lay xamal ne ala kulli xaalin tasxiir yi tamit jàpp na bu dee koo xam ne nag mm, dangay ñaanal nit ci wàllu lu ko dal ci wàllu tawat ñi xam ba xam rab wala du rab ngay def listixaar tolloog ñetti guddi yoo xam ne saa boo géntee dangay fekk ndaw si di sangoo ci biir duus waaye illaa waa ji ngay ñaanal foo ko fekk ci duus lay nekk dañ koy xamal ni loolu wàllu rab moo ko dal te rab yi ko gaar mooy rab yi dëkk ci biir duus ba tey gént di sangu fekk ngay sàkk wërsëg ci misaal koo xam ne ngay ñaan yàlla pour mu jàppandal sa wàll wërsëg nga gént di sangu sangu janaa ba kulli xaal dañ koy xamal ne li nga doon sàkku yàlla yombal na la ko ba tey mbokk moo xam ne danga yëg ne faatu nga gis ne sang nañ la ba di la jullee ala kulli loolu ak ubbeeku la lolu kumi faral di lolu ubi ubbeeku la ci walu wërsëg ba tayit it bu don ku nek ci ay jafe-jafe ala kulli hal dana ci euh bu ko defee nak ñu léralalé lu am solo moy ci ku faatu eh, bu den tane nak nit ñi dañuy faral di sàgganee lo xamni kenn war ko sàggane képp ko xamni am nga mbokk mu faatu mbokk mi ngal li ko desee ci ay waxtu ci kaw suuf nañ ko ko fonkal bu baax nañ wut ko mëna sang neew ku xam ne ñu sangee néew di ko defee na ko lislaam santaane di ci sàmmoon teg teggin yi ndax nit ki ñuy sang waruñ koo teg foo xam fépp day maas dañ ko war a teg foo xam ne day xaw a tóol benn côté bi am foo xam ne saa ko sangee ndox mi fa la jëm day rogalaat di jëm ci benn pax bi ci desaat ñu koy nekk ñi koy sang du caagi ne yaram bi ngay jël sa loxo yi di ko bomb déedéet day am lu dox sa digganteeg yaramam mooy lu mel ni gant wala mbuus moo xam ne ci ngay jël di ko raxasee yaram bi bu dee góor la kenn waru koo futti ba mu set di ko sang bu dee jigéen la kazaalika nekk noonu bu dee ay jigéen ñoo koy def waruñu koo def noonu bu dee ay góor waruñu ko dañ ko war a muur lu tàmbalee ci jumbax bi ba ci óom yi dara warta feeñ ndax loolu mooy sutura si nga xam ne am na bu ko defee